yéen waa Sénégal yéen waa Ngaay seen doom a ngi nii man la Petit Madj magi Xaadim ak Moustapha bay naa fàtte ak Aram Mbaye fàtte Madina Aram Mbaye su ma tëggee ndaanan laa su ma tëggul ndaanan laa laa ilaaha illallah waaw neex yow kii du Petit Madj ah sama waay jógi na la ay ah, waay Petit maa ngi nii waaw foo den Moustapha ma wax sa ah man sax maa doon wax ku ma yónni pour buñ ma korite ba ca yetti fan ya ca ñaari fan ba ñaari ya waaw ah waaye gis ga ma daal ni nag aw ma dem ba ngaay talax-talax yi gis petit man war na yàlla fan fekk na sama xel bi fan mi ngi ci yow ndeysaan mais li naan la moo tax yàlla moo gën bu nit démb fii laa ndogoo ci ci ci Moustapha laa la wax Moustapha sama sama sama ménager Moustapha sa ménager fii laa ndogoo ci kër gi nga xam ne boobaag léegi talto lekk talto naa ndax rek su bis bi sax daa xëy ak kër gi ni meng kon dem fi nga ndogo ay waay tey si waa kër ga may waa tey ngaay dina yëngu de waaw waxuma la yëngu mais tey te ba tey yetti fan ñaari fan ya bu ñu yàlla bëgg jàmm ak salaam waxuma yëngu yàlla mais day de puuj puuj nga ne nay def pëcc maaj dañuy maaj pëcc maaj rañ ah rañ xib si ba rañ xib si ba rañ xib si ba rañ xib si ba rañ su ca bis ba ca fekk. dootuma ko fàtte ba mukk. yow nag uh, da nga ko ca bayaan. Mm-hmm. ay waay keroog li ma boobu boobu nag bu soobee yàlla. Uh-huh. li ñuy jëm incha allah mu gën koo dàq. ay waay bu boobaa. ndax uh, ña yàlla. Uh-huh. Euh, day def chaque jour bu ñëwee rek bis bi day gën a ala daw mi. ndeysaan te li ci gën a neex mooy. Uh-huh. daaw bokk ci yéen ragal def nag yàlla na nga bokk ci. acam kon naa ni. li nga xam ne ndaanaan bokk na ci. waaw neex ñaŋ. fekkes mm-hmm. gépp moom la ñu diglu dinaa leen màbbu nag ñu xabarti ko ànd jalañ jalañ ba ngaay. bu boobaa kon dara du sedd de. waaye wër te yóbbu kaw seen laay yéeg ma ni waa Pekes. Uh-huh. ba laa wax. Mm-hmm. korité ba te yaari fan ya. Mm-hmm. neex ña nga ngi ngaay kaw seenu. petit man petit bu soobee yàlla sax bu nu ko rotee ba ci suba nga sama benn xeer bu ma daan àndal tudd mbay baabu ndeysaan nekkoon ci rajo ngaay bi oh dama ko ci bëgg a oh, bu ma xëyee wàccee ko kaamil bi ndeysaan di invité àdduna bépp Sénégal gépp ngaay gépp ndeysaan kooku xam ne nekkul la xaritam ab di jàmm ndeysaan ñu defal ko ñaan ka wàcceel ko kaamil ñaan yàlla yokk leeram bul jooy neex bul jooy maa yow bul jooy dangaa baax lii nga ci xalaat bu loolu bu loolu weesoo Ah, suñ ngoon nga bu jugee ci loolu ñu def benn session bu ndaw aywa suñ ngoon nga nag ay quatre heures cinq yàlla defoon na moom ay xarit yoo xam ay sportif lañu woon oh. ma bëgg ñu def benn tournoi bu ndaw rek aywa yaram daw ko ko <laughs> bu loolu waaye bu ma bu ma bu ma jooyloo neex bu ma jooyloo waxal bu loolu weesoo nag. si lendemain ba nag. Ah. ñu dem Séeweuse kër maam Asu. Oh. fas yéene faa toroxal seytaane nag. Oh. ndax lu yàgg rek dëgg la. waaw boobaa nag di invité Sénégal gépp. ndeysaan ndax petit Madj yàlla dafa def ni dootul petit Madj ngaay mexe rek. petit Madj àdduna ci ma génn ci ñaari boo xam ne delloo la. boo xam ne ma chérie boy la. Oh. waaw mën na leen lim nag. bu ah. nu fi dañuy fanaan ba du ñenn. ay Madj xam la un appel solennel. adduna bi yëpp la nañu tout le monde Turquie Burkina Faso Abidjan woo oh ñëpp ñëw leen fii ci ngaay nag korité ba ca yaari fan ya barke sëñ entrée entrée bi 3000 la le jour ji uh-huh. prévente ah, à partir de vingt yow boo ko ma di mee japp ñaare gel du jaxan nga gëna mi no sa yo ko gisul we ma chérie